ngeen jot di abonné a jot moo leen vidéo boo la fi naafila 17 guddi fukkeel gi ak juróom-ñaar ci weeru koor sopp nañ ko ci julli fukki rakka ak ñaar aka bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon jàng inna anzalnaahu fii laylatil qadri ñaari yoon jàng xul huwallaahu ahad ñaari yoon bees na ko ca bindal tuyaaba ju tol ne li mu gëm yàlla ba ci ko mujjee gëm bu fekkee dafa feebaroon yàlla suñu borom dina ko wéral bu amee woon bor itam yàlla suñu borom dina ko ko fayal bu ko fekkee ci njàqare itam yàlla dina ëlbati njàqare la te it dina ko musal ci safara